xam naa moom tey dina leen gën a leeral yu bëree bëri ci bagage yi nga xam ne war nañ cee waxtaan mu bala nga néew mbokk askan wi asibillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahimi maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta wala daalliin amin mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki mbond bi yëpp képp ku janow ñun ñu ngi lay nayu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Babacar euh, Sarr borom 66 rawxaani ñu ngi lay kontaante bu baax di lay fay ci sa néew yooyu noonu tarkal la jërëjëf wante nag euh, laata may ubbi damay ñëw ci li nga xam ne xewoon na ci biir réew mu di xew xew jamono ndax boobaak léegi dalaluñ la mu bëggoon ci bàyyi la nga am loo ci sànni say kàddu ñu yaatal laata ñu dugg si biir yi alhamdulilah xanaa li xewoon ci réew mi di ñaan yàlla rek jàmm gën a yokk comme jàmm rek moom moo baax ci am réew foo toll danga war a ñaan pour jàmm gën caa am li ci xew yëpp ak li ci jaar yëpp nag dégg nañ ko waaye ak nu mën a demee daal yàlla na jàll jàmm yàgg ci réew mi yàlla na fi jàmm sax moo jar a ñaan yàlla na ko yàlla def Euh, mm. kii di sa doom bàyyi mu di Adji Sarr la benn réew mi de ndax coow li moom moo ko indi niñ ko mën a waxee indi aji Sarr jàppal Ousmane Sonko coow li mel ni tulleeg male ba gis nga li fi wadd ci bakkan bëri na liñ fi yàq bëri na loolu wax mm. ci jigéen waaw loolu yëpp dégg nañ ko ah, xanaa ñaan yàlla jàmm ji comme ni ma comme ni ma la wax léegi rek ah, def dégg nañ nañ ko dégglu nañ tamit waxam waaye lu ci mën a xew daal yàlla na jàmm yàgg ci réew mi te tamit na yoon def liggéeyam rek te bu yoon defee liggéeyam tamit na ko teg ci yoon waaw xamul faral kii xamul faral kële su boobaa rek danañ xam fi dëgg ji féetee te am naa yaakaar ne tamit bu dëgg ji feeñee dana euh, euh, dana feeñ foo xam ne foogewuñ ko woon. Mhm. waaw ndax euh, li ci xew ci réew mi yëpp yëg nañ ko ci ay xeetu ay takkalak ak yeneen yeneen yoo xam ne sax nit ñi ñëpp mënuñoo wax lépp waaye lu mën a xew daal. Euh, na yoon def liggéeyam rek bu defee liggéeyam daal danañ xam ci dëgg ji yëpp féete yi muy ci ajeeg muy ci Ousmane ak ku mën a doon rek su boobaa moom dëgg ji moom fa feeñ moom dana fa feeñ moom incha allah. am na solo dinañ dellusiwaat yaatal ci kanam dama naan coow dugg nag ci suñu biiri laaj li nga xam ne saa su nekk nit ñi ñu ci am yaakaar ci yow bu baax a baax ba di koy taataan si fii sa keppaar di koy sàkku si damay ñëw sànq ndax maa gis nga téye lu meloon ne ni ay ndombo bëggoon naa ñu waxtaan ci bu baax a baax yaatal nga wax ñu secret ndombo yi ak mbóot yi ne ci biir. waaw ndomb yi danañ ci waxtaan waaye euh, dañuy dem ci première position. Mhm. mooy ndomb yi. Mhm. liñ ciy wane. mooy gii comme li ma waxoon rek nee naa woon na leen ndomb gii ci mbiram takk der ci lay dox képp koo xamante ni bañ nga police arrêté la wala bañ nga dégg di dox di taseeg agresseur wala fuy nit di ragal fuy fuy nit di ragal nga ragal faa jàll boo fa jàllee doo am benn problème te képp ku ko takk mucc nga ci kaso sa giir ak dund kenn du la tëj kaso mucc nga tamit ci dugg oto di def accident yooyu yëpp yàlla dala ci musal ci ndomb gi moom ci loolu ci lay dox bii nee naa woon ne ci mbiram tàkkatit ci lay dox maanaam mbiram tàkkatit boo ko déggee mooy ku la dóor balu fetal du tàkk waaw day nekk ndox ku la jëm paaka bu naru noonu buur jëm ci ci yow paaka bi day lemu jaasi noonu weñ noonu moom it loolu ci lay dox ba tey daf lay ubbi waale si say buntu wërsëg moom loolu ci lay dox ndomb gi ci wàllu kayit ci lay dox ak alal maanaam bépp doomu aadama boo xamante ni yaa ngi lijjanti kayit kayit yi ci boppam jafe. Mhm. wala yaa ngi fëgg bunt bunt bi dëgër wala nga bëgg yokkute si sa bopp yokkute gi ci boppam jafe la lool. Mhm. boo amee ndomb gi yàlla dana la dimbale avancement yooyu yëpp yàlla dana la ko defal ndax jàpp nañ ko ci ñett juróom-ñaar juróom-ñaari asamaan. Mhm. juróom-ñaari suuf juróom-ñaari bés. te loolu moom mooy àdduna bi mhm. jàpp nañ ko ci yooyu moo lay mhm. xamal ne la képp koo xamante ni làmboo nga moom daal mhm. yàlla dana la ubbi ci xeetulu buntu wërsëg yoo xamante ni dootoo tëj mukk jërëjëf euh, Serigne Babacar Sarr borom 66 rawxaan yi am na solo ci foofu nga xam ne ci lañ tàmbale woon sànq ci li nga xam ne mu ngi koy jëflanteeg euh, jaam yàlla yi acca ba léegi gisoon naa sànq nga téye lu mel ni ay xaatim bëggoon naa ñu dël si ci ñu yaatal bu baax baax mais dinañ nga gën ñoo yaatal ci xaatim ndax xaatim euh, ni mu amee solo ni mu mën a defaree ki tawféex dégg naa ñu bëri di naan noonu la mën a tëjee di xaatim waaw xaatim yi niñ koy mooy maanaam xaatim bii ci mbiram kaaraange ci lay dox bépp doomu aadama boo xamante ni xamoon nga jafe-jafe yu nekk si sa yaram mm-hmm. ak jafe-jafe bu mu mën a doon xaatim bii boo ko sangoo yàlla dana dimbale danga nga tàqali koo boobu mm-hmm. moo xam ñu liggéey la moo xam rab jun dugg la wala jinne dugg la wala rawaan gu soxor dugg la mm-hmm. wala ñu kortu la wala njabar lu mën a doon dégg nga loolu boo ko jëfandikoo. yàlla dana teggil feebar boobu. kanta sax waaw mm. feebar boo xamante ni amoon na dix ans ci ci gannaaw sax wala quinze ans boo ko sangoo yàlla dana tàqali ko moom ci nu mu gën a gaaw. moom ci mm. mbiram défense daal kon nga xam ne mu ngi lëmb ci réew mi ku ko sangu woon du fekkee ne mën naa topp ñëpp yow mën nga cee mucc xanaa. amul benn werante mucc ci kay daay man baaba dan loolu moo gën a gaaw. mbas mii xew ci réew mii nga xamante ni am na at nangam nàngam hmm. waaw lii képp ku ko jëfandikoo hmm. mboolem feebar bu mu fekkoon ci yow da koy teggi mbas mi sax moo ci gën a ndaw mbas mi sax moom moo ci gën a ndaw ci li muy faj waaw mbas mi ci boppam ndax xam na feebar yu gën a garaaw mbas mi hmm. waaw te mi ngi mi ngi fi ñu ngi koy dund ci biir waaw te feeñu mbas mi rek mbas mi moom moo ci gën a fës rek moo lay xamal ne képp ko ko mën a jëfandikoo daal mboolem tawat yu nekkoon ci yow dagaasiw na mhm. yaa xam feebar boo mën a xam ak feebar bu mën a doon moom yàlla dana tàqali ko feebar boobu incha allah ci nu gën a gaaya mhm. ba tey bii bii ci mbiram jëkkër ci lay dox wala mbiram soxna mhm. maanaam xam naa ne ñi soxna wala ñi xamagul euh, jëkkër buñ ko gisee ñoom dana leen yitteel kii loolu ci lay dox ndax boo ko gisee ay yaawu duudu lañ ci def wuduudu moom jeexal na mhm. moom day dugal rek waaye du génnee waaw mhm. ba pay am na ay yeneen yeneen yoo xamante ni moom lañ koy booleet képp koo xamante sangoo nga ko daal mhm. moom bu fekkee borom kër rek nga bëgg dégg nga da ko am ci lu gaaw bu fekkee ne soxna nga bëgg nekk góor bëgg soxna yàlla dana la ko jox ci lu gaaw a gaaw a gaaw ba sax da lay ubbiwaale en même temps daf lay ubbiwaale ci wërsëg ci avancement ci yokkute ci xeetunu buntu tiraanga yëpp mhm. yàlla def la koy jox sa connaissance sa diggante nit ñi day gën a yokk waaye du wàññeeku mukk moom it mhm. loolu euh, ci lay dox ndax jàpp nañ ko ci ay secret yoo xamante nii mhm. sa turandoor Sema Tidiane moo daan koy joxe waaw sa Maroc ndax dafa toogoon lum ñaan rek loolu ci boppam dafay nangu mm-hmm. dégg bu naan nii rek loolu day am mm-hmm. su ko defee mu jaaxal taalibi yi ci xeetu ñaan bu gaaw boobu mu jaaxal leen lool ñu laaj ko ko mu ne leen ba ma di ndaw lañ ma jël yóbbu ma ca pay hadratul kursi yu ba lañ ma jël yóbbu ma foofu sama njëlbeen di sama mujj sama mujj di sama njëlbéen mhm. sama lenn di sama lépp mhm. sama lépp di sama lenn mhm. soo ma laajoon junnee laaj mën naa la koo tontu ci benn baat maanaam boo ko waxoon junnee soxla mën na la ko liggéeyal ci benn baat ci boppam xam nga lii boo seetloo benn baat la yaawu dudu yaawu dudu loolu benn baat la rek waaw mais nag xam na limam waaw képp ku ko jëfandikoo daal. Mhm. moom bu fekkee teraanga rek ak bayra ak mhm. yokkute. Mhm. ak maanaam euh, mbiram borom kër wala mbiram soxna yàlla dana la ko jox ci lu gaaw a gaaw a gaaw kii ba tey maanaam ci mbiram bu fekkee maanaam dangaa nekk ci liggéey. bëgg ñi ràññee la ci liggéeyukaay bi nga nekk. wala bëgg liggéeyukaay bi ci boppam. nga dem ba nekk directeur wala chef bi yaa xam loo mën a doon. wala nga bëgg falu. yaa xam loo mën a falu yaa xam ministre wala député wala président lu mën a doon yàlla dana la ko fal ci lu gaaw a gaaw gaaw loolu ci la gën a aay sax maanaam ku soxla pour falu dara pour xëccoo dara bëgg cee jot mhm. loolu ci la gën a gaaw foofu sa baaram kon fii nii zaar yi nii nga ne képp kuy falu su ko yittee du ko jëfandikoo rek yàlla mën na ko cee jàppale kon ku mel ne Ousmane Sonko mi nga xam ne ñaa koy xaar di koy séentu te li ci ëpp jox nañ ko gët di koy sóoraale deux mille vingt quatre bi soo ko ci joxoon kon du sangoo nga defal ko ci bagage mën naa jël réew mi kon. for force. ah waaw maanaam falu for force la. kii kenn kenn du ko jëfandikoo di xëccoo dara te mënoo cee jot fokk nga jot ak lu mu mën a doon nag ak looy mën di xëccoo yow yaa xam da nga mën a jot muy Ousmane sonk muy keneen ak ku mu mën a doon. lépp looy xëccoo danga ci jot incha allahu rabbi ci lu gaaw a gaaw a gaaw ndax euh, sabaax sabaax lañ koy wax sabaax sabaax mooy euh, ñett juróom-ñaar. Mhm. juróom ñaar asmaan juróom ñaar suuf juróom-ñaari bés. Mhm. am na yeneen yeneen yu muy àndat waaw boole nañ ko zuyni boole nañ ko wa asina ndax boo déggee wa asina finance bi xaji yett ko rajaalan ala kulli daamine yettina min kulli fajin xamiqin loolu yàlla ci boppam moom moo ko wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa dañ doon woote lislaam yëf yi dëgër ci moom lool sax waaw comme woo du ñëw nit ñi lànk di bañ rek su ko defee mu wàcceel ko aaya bi ne ko hmm. demal nga toog nit ñi ñëpp dañu la jublu ci ñëpp dañ la ñëwal incha allah lépp looy yittewoo hmm. yàlla dana la ci fekk dana la ci fekk ci ci nu gën a gaaye wàcceel ko loolu loo ñu mën a wax ci xaatim bu damm gannaaw ba nga duggee ci xaatim yi ba pare xaatim bu damm kaatim bu dammu xaatim bu damm moom moom amul njëriñ mhm. xaatim bu damm moom ba ne bu dammu rek booba la jeex ndax kaatim bu damm kooku dafay lor nit waaw bu damm ab sëriñ sax daf ko war a moytundiku mhm. waaw xam na nag waaw dafay maanaam ban kii nga bëgg a wax foofu ban bi da lay tëj wala waaw maanaam daf lay tëj mhm. daf lay tëj xam na xaatim bi am na nu muy fooree sax bu àndatee rawaan bu àndatee rawaan wala mu ànd ak jinne wala mu ànd ak rab kooku mën na laa fàdd nga dee ndax xaatim bu dam damm baaxut xaatim bu dam moom ku ne xam ne baaxut xam na nag ñu koy def ñoo xamante ni xamuñ dara loolu bëri na fi waaye nag kenn ku nekk rek li nga mën ak li nga li xamal ci man li nga mënul nga bàyyi loolu rek fi ne jërëjëf acca mm-hmm. damay ñëw ci am na xob yu ma fi gisoon sànq man xaw ma xob yi lan la bëggoon naa nga si ci bu baax a baax ak euh, nga wax ñu lan mooy njëriñam xob yi xanaa luy mayee xaalis rek yow mii soo ko bëggee soo ko laaloon léegi nga am xaalis. xaalis waaw maanaam koppar mbiram koppar. ki la gaaw xob yi ñoo may waaw ndax fof pofton moom ku ne xam na ne mbiri jinne la te jinne day joxe. waaw su ko defee nag am na ay alxuraan yuñ ci liggéey yoo xamante ni maanaam ay fatxan la. Hmm. dégg nga ak rasaaku. dégg nga ak maaluwu lu ñuy wax maaluwu ndax yàlla moo ko wax nee na inna haza la risquna maaluwu min nafadin hmm. inna haza lii la risku wërsëg la maalu ak xalal min nafadin ci yéen doomu aadama yi mhm. dégg nga kon loolu ma euh, liggéeyaale nañ ko ci képp ku ko jëfandikoo bu fekkee alal rek nga soxla mhm. loolu yàlla dana la ko jox ci nu mu gën a gaawee bu fekkee ba tey da ngay liggéey liggéey bi dëgër boo ko jëfandikoo wërsëg dana la ñëwal ci jamono ju nekk maanaam am am bi day yokku mhm. toujours daal mais du wàññeeku ci jenn jamono moom it loolu ci lay dox waaw képp ko koy werante nag moom laan du moom. Mhm. Ah, ñam ko nga xool. da xam ne liñ nga ci wax dara du ci dañ. acca kon euh, sëñ Babacar Sarr borom 66 rawxaan yi mu ngi noonu ak euh, li nekk ci xob yi pafton yooyu mu leen di wax bëri na mbóot bëri na secret bu ci nekk acca damay ñëw ci sunguf yi nag laata may ñëw ci biteel bi nga téye. Mhm. wala ma ñëw ci biteel bi. Mhm. acca ñu ñëw ci sunguf yi ndax sunguf yi itam bëggoon naa nga ñëw ci sungufu cat ak sungufu waaw sunguf yi de ñëpp xame nañ ko sëriñ Babacar. ndax fu nekk nit a nga fee woote naan ma sa sunguf yi sa sunguf yi sa sunguf yi. waaw ndax xam nañ ne sunguf yi moom yow bi nga commencé def interview ba tey. sunguf yu demee nii yaa ngi koy gis. xam nga ne yii moom bagage la. mu ngoog waaw sunguf yi. kii ci mbiram cat ci lay dox. maanaam ak rab. Mm-hmm. waaw boo yoroon rab woo xam ne nee naa ne la adduna bi yëpp dañ koy yëkkati attanuñ ko. Mm. boo ñëwee Serigne Babacar Sarr borom rawxaan yi mu teggil la rab boobu mu jeex ci yow ci nu mu gën a gaawee. dégg nga bu la cat jàppoon ba sa dara duxut. Mm. ba fi nga tëdd mënoo fee jóg tamit boo ñëwee danaa la ko dindil ci lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw waaw moo xam tamit nga tëju yaakaar yuy tas loo dugg mu yàqu lu la nit dig du la ko jox ko séqal mu wor la ak lu mu a doon ci côté boobu. Mhm. sunguf si moom moo koy teggi. jàpp nañ ko ci ñaar fukk ak benn. Mhm. maanaam ñaar fukki armel ak benn ci lañ koy jàpp. ndax armel bu fa nekk euh, da ngay fekk géejaan gu fa sax nga xas ci xas mi rocc ci xob yi xam na yeneen yeneen yi ñu koy boolanteewaat dëbb ko ba mu mat tey jii moom lañ def mu nekk sunguf. Mhm. képp ku ko suuroo mboole ku ki mënut euh, ci ki tëdd foofu. du mant yow dara. waaw loolu moom it ci lay dox. <laughs> bii bii sungufu bayra la. kii moom bu fekkee bëgg nga coow rek topp la. Hmm. yoral sunguf si waaw coow rek topp la. Hmm. yaay xëpp Ousmane Sonko bayra. xam nga Ousmane sonk jamono ji moom kenn waxut lam lam laamitu bayram ak Adji saar hmm. waaye yaa la ñu bayra. waaw ñu amee bayra noonu yaw dang nga leen ñu romb jàll képp ku ko sangoo. bayra moom dana la ñëwal ci côté bu nekk bayra la waxuñ bayra ak coow yu coow yu kese rek bayra ji day ànd ak yokkute day ànd ak ubbeeku ci xaalis day ànd ak réussir bu baax a baax nga man lu ne di def lu ne loolu euh, ci lay bayra googu di dox da cee dox tamit pour nit ñi jublu la pour di la man di la jëriñ waaw ngay ngay ngay xam yokkute ci doomu aadama yi mm-hmm. kooku moom ci lay dox waaye du bayra goo xamante ni ay coow yu kese rek la moom it noonu ci lay dox. képp ku ko jëfandikoo daal incha allah. Mhm. li ma la ci wax noonu yëpp yàlla dana la ko defal ci ni mu gën a gaawee. tarkalla acca jërëjëf damay jeexal ci benn ponk boo xam ne bëgg naa cee dellusiwaat bu baax a baax mu di sëb butéel bi boo bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax a baax. butéel bi butéel bi mbiram noob la. noob boo ko déggee mooy maanaam nit ku la wan gannaaw nga bëgg mu jublu la. waaw ak ku mhm. mën a doon nag. moo xam góor moo xam jigéen moo xam ku am xaalis moo xam ku mën a doon maanaam koo soxla rek tam daa di lay wan gannaaw dégg nga. Mm-hmm. soxla si nga soxla ci moom te fici dégg nga nga bëgg soxla soosu mu fekk si la ci jublu la euh, incha allah suñ la ko defalee bu soobee yàlla yooyu yëpp yàlla dana ko def ci yow. Mm-hmm. ñu ngi koy suul nag ci ñetti étape buntu géej buntu robinet buntu teen. Ah, su ko defee nag am na yeneen yeneen yu nga xam ne yoo xam ne ñun ñoo koy ñaan si suñu turi rawaan yi su ko defee ah, sa soxla soosu mën a faj ci lu gaaw a gaaw gaaw loolu moom it ci lay dox. jërëjëf ñu bala nga tàggatoo jëmale ko ci réew mi. di tàggatoo li may jiital di wax ne réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm rek. Mhm. waaw jafe-jafe yi paase woon yëpp yàlla bu mu fi xamaat. waaw mbooleem xat-xat ak gàllankoor yi ci nekkoon tamit yàlla na ko yàlla teggi di wax tamit liñ fi wax yëpp dégg ngeen ko alxuraan nee na kullu nafsin saayiqati mawti nee na mhm. bakkan bu ñëm dund dana ñëm dee mhm. kon lépp looy jëflanteeg doomu aadama yi mhm. war naa leer li nga man nga def li nga mënut nga bax doomu aadama mënul lépp yàlla rek moom mooy ki nga xamante ni moom moo man lépp dégg xaqi walaw kaani nee dont dañ lay rey. Mhm. waaye waxal li nga xamante ni tamit moom mooy dëgg. Mhm. te tamit ñaan xam na ñaan kuy werante na ñaan xamut ñaan ci boppam xam na te ci jamonoy mag ñi ba tey ñaan yaa ngi fi te du fi mos a jugee xanaa kay daje ki nga xamante ni. moo moo am ñaan gi nga soxla ak ki ko amut. Mhm. looloo fi ne kon ñu ngi leen ñu nuyu yéen di lay ñaanal seen site bi yàlla na ko yàlla yëkkati fi ngeen bëgg yegg yëpp yàlla yeggali leen fa def jàmm ak sutura ci réew mi ak ci bitim réew yëpp yàlla na ko yàlla def ci barkaaru Quran wasalaamaaleykum wa rahmatullah